jërëgën jëf mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñu ngi fii ci jàmm gën ci biir kër ñoom Gabu ñu ngi dend ak euh, way juróom bu jigéen ñu koy wax ay euh, Aysatu soxna Aysatu Sugu ñu fas yéenee taataan ay kàddoom rek ci li nga tiis bi nga xamante ne bii euh, dal na ci kawam soxna si gannaaw ban la masawoo li dal sa sa sa kaw ñu ngi lay nuyu. Ah, ngi lay nuyu bu baax. maa leen di fay. di la masawo bu baax a baax di bokk yow tiis. maa mi bi mu amee na nan nga ko nan nan nga ko dund. mu metti trop ndax ku sañoon buñ lay woo ci sa doom dañ lay woo ci sa doom la ne mais nga toog ban woon naan la sa doom jam nan ko sa doom rey nan ko moom ku ne xam ne ne loolu neexul sa xol. nekkoon ku sori ci yow tamit. Hmm? mu nekkoon ku sori. di doon sama xarit xale bu góor benn doomu góor boobu rek laa am muy sama xarit muy doom bu ma bëgg ko trop ñuy waxtaan maa ngi moom waxtaan yu sori muy sama doom bu mu bëgg ma xëy xëy ñu ne rey nañ ko ci mbir ni mu amee. ah ni yóbbu ci biti mu féex yóbbu ko ci biti nga man daal damaa toog àll alxames àllarba ma toog fii ñu yeewu rek ma xool bunta mu gis ma ubbeeku ma ne sama rakk doom bu jigéen la xanaa ga bu fanaan fi mu ne ma ne ko déet ma bu ubbeeku xam fi mu ne xam nga ne kër Mama Lamine lay nekk mooy mbër bi bëri bu doon bëri dimanche ma ne ko mu ne ma mu ne ma ne ko ah mu ne ma waaw ma daal di def samay service yëpp bi ñu paree noonu ba ay 2 heures ma jékki-jékki rek jóg mu ne ma yaay lan la ma ne ko nan dem kër Mama Lamine mu ne ma la xaw ne ko kii mosul fanaan àll tey mu fanaan àll nan dem daana fanaan àll sax mais bu daan fanaan ci ay cant lay fanaan bu moroom bi def ay cant guddi àjjuma bi mu dem ma jóg dem kër Mama Lamine bi ma demee ma tase ak seexam bi rey sama doom bi tey ci buntu kër gi sama doom bi ne ma sama doom bu jigéen bi ne ma kii bëre kii mooy seexam ma ne ko ah, ah mu ne ko kii mooy yaayu gaba ak xale bu góor bi ñu àndaloon présenté ñu waa ji ki rey sama doom bi. boobu yow yëgagoo dara. boobu dee amagul alxamis la loolu te boobu xaw ma kuy maam Malamine sax dégg-dégg laa ci am mais xale yi xam nga dañuy xam mbër yi ma dikk wax ak kii rey sama doom bi tey ma ne ko nii mu ne sama mu kii mooy sama yaay mu ne ko ah mu ne yaay yaay gabu ma ne ko ah mu ma gabu fi la nekkoon moom ki ko rey dafa génn. wante xaar ma ne ko ma de mënu maa dem te gisuma gab ndox fanaanu kër gi de mu ne ma mère fi ma ne ko ah mu ne ma waaw mu daal ne ma xaaral am fu ma woote laajteel la ko moom ki rek sama doom mu am fu mu woote ñu ne ko gaboo nga fi sarul seen wetu kër ma ne ko kon ñun ñoo ngi dem su ma àggee ma ne ko suñu demee ma ne ko kon grand ñoo ngi dem mu ne ah mu ne waaw jamono boobu yow amoo benn dut boobu dee amagul boobu jam amagul rey amagul xel ñaawul ci benn yoon benn jeudi bi la samedi la ko rey mais loolu jeudi bi la ma dem léegi bi ñu demee ñu fekk foofu ñu ànd ak moom ñibbisi bi ñu ñibbisee ma ne ko yow lu tax nga wat sa bopp bi nii mu ne ma yaay maam Lamine muy bëri suñu mbër buy bëri te bi gisoo ko 10 000 laa ko jëndee mu def ci photo turam kii photo maam Lamine wat bi def ci tur bi bu turu bopp bi baaba Lamine maam Lamine ma ne sa bopp bi ñu ko watee dafa ñaaw mu ne ma yaay làmb ji samedi la bu samedi su guddi sax bu la neexee ma ko ma ne ko ah mu ma waaw ma ne ko bul fanaane te mu ne ma yaay suñu mbër bi muy bëri donc tax ma fanaan foofu ñu toog sama néeg maam ñuy waxtaan muy jour jeudi bi ma ko fa jëlee bërset bi di àjjuma mu yeew demaat ko ñoom maam Malamine mais bi muy dem man gisantuwuñu ndax boobu yeewu ma dafa xëy fajar dem kër maam Malamine mais fi la nee nan ndax sama yaay maa ngi koy laaj fi la fanaan munuma fi la fanaan ba sol na ba dem samedi bi mu ñëwaat même chose bi muy génnaat di dem maa ngi sama néeg di ko gis muy dem ndax sama rido bi dafa yaraa maa ngi ko bëgg woo munuma ko woo xaw ma lu ma téye xale bi dem kër Mame Balla ci dimanche boobu boobu ay 4 heures lay génn ci bëccëg bi ma bëgg koo woo mënu ma ko mu dem jour ay 9 heures et demi rey sama doom foofu ndax man bi may woo may agsi hôpital 10 heures jot te foofu laa fekk ñoom sitta ndax ñoom sitta ñu ko yóbbu woon waaw ñoo topp sàkkur bi rek la nga xamante ne bii lu lu lu metti ci sa kaw euh, euh, ñi ñi ñi la wër tamit sa njaboot ki ay magam ak i rakkam naka lan ko dund metti rek metti rek mooy xale bu baax bu ma bëgg bu ma yërëm sax xale bu baax bu doon samay coobaree bopp kon bi am na jabar te vingt ans la am mais danaan ma yaay kenn du ma takkal jabar maay liggéey am sama xaalis takkal sama bopp jabar dama la nga naan wax doo takk jabar gabu kaay ma takkal la jabar ma kenn du ma takkal jabar damay liggéey ba am sama xaalis takkal sama bopp jabar lii la ma naan wax hmm. léegi kàddu yu mujj lan lay doon ah xanaa xale yi di moytu rek waaw ndax lii moom kenn xamul lan la ndax fan yi rek leen dégg benn xale bu jigéen bu ñu rey samedi ci suuf bëccëg bi dégg naa ko góor ko ñu rey ndëkkati ci guddi gi sama doom la ñuy rey xale yi di moytu rek daal waaw. gis Siteu tamit taxaw ci taxawaay bu am solo. waaw ndax maa ko yar ñoo bokk koñ mu juddoo fi yaroo fi di ànd ak samay rakk yu góor ma xam ko bu baax yar ko bu baax waaw kon kooku bu rombee sama doom fu mu lottee war na koo mën a jël ndax yar maa ko yar. jërëjëf lay masawuwaat bu baax di lay ñaanal suñu borom may la xolum muñ